mi ngi koy xelli ci loxoom nee na ku ci barkeelu sa aay dina faju kon nag ñu déggee ko noonu di sëm bi ngir yàlla dogal na fi ñu toll ci rab yi góor yi nekk fii cees yaakaar naa ko ma fi ma xaw ma ko fi ma dama ko tàmbalee ci daayira xidmatu xadim bii xidmatu xadim gii kat dama leen di xamal ne ca sama kër faral ko tudde sëñ Saalum Touré moo ko tudde woon xidmatul xadim sama mag yor ko ca kër ga ñépp di ko fekk si ba mag ñi dem sama jaay seeni mii tax ngeen daje fi moo ko moo ma taxawu jox ma daayira ba wax sama mag ñoom ñu jox mag ñépp dajaroo jox ma daayira bi daayira bi maa ko yor yor naa ko fukki at ak ñett xaw fukki at ak ñeent maa toog ba ma koy joxe ma sàmba yëgul ma dem ba yëgul tàgguma kenn booba itam li ma jeexoon ma joxe ko itam dama ko dénkaane woon maa maa doon maa doon seen ki ma ko dénk maa ngi ko dénkoon ngir jëmmi Cheikh Bassirou Sarr mi nu bokk laa ko dénke woon waaw Cheikh Bassirou Sarr jam suñu bi bokk moo doxoon ma dénk ko maa ko dénkoon nag joxewu ko woon dama ko dénkaane woon waxtu ma ci amee soxla dinaa ko jëlaat waaw daa bëgg ngeen xam loolu daay dëba kër sama kër la juddoo fa la màggee fa la defee lépp ño daayira xidmati xal yooyu tam ci sunu kër la jógee mag ñaa ko ñëwoon teg sama loxo itam ba ma demee ba sama waa waajur yooyu yëpp génn àddina sama ne jaay seeni mii moo ma taxaw ne ma léegi mënoo góor ñaari kër yi joxe daayira bi ma may doon def yëf yi wolof yëf jël jox ko dégg ko fii ci sama kër sëriñ sëñ Basiru Saar waaye dama koo dénkaane woon nag daa bëggul mu leen ñëpp dama ko dénkaane woon waxtu waajee soxla naa ko jël waaw dama bëgg leer ñëpp dama ko dénkaane woon joxewu ko dama ko dénkaane woon loolu laa bëgg mu leer ñëpp léegi nag wax ji ba daa bëgg sëriñ ci yéen yéen lañ yaakaar man boolem ko dib bu góor Cees ko ba mag amul fii nekk baa xaw ma ko bokk ngeen ñaanal nu mbokk gi yàlla boole xol yi dàqal seytaane bàyyi nu ci kanam njaboot gi loolu daa leen di wax gi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala am mbooloo njabootu Baye Serigne Sini Niang di am mbégte ñëw fii ci jotaay bi nga xam ni bu kóllëre la ndaxte sama xarit Serigne Cheikh Niang daf ma wax ni am nañu suñuy bés ci njaboot gi ak kër gi bës boobu mooy suñu bës te diggante bi am sama diggante yow bëgg naa lépp lu ma am ñu ànd ci kon tey ci bés bi ànd ci ak monsieur le maire Aliou Sow ànd ci ak Daouda Faye ànd ci ak Abdou Salam Mbaye ak ànd ci ak Cheikh jànq ak Daouda Soare ñu ñëw pour taaral bés bi ñuy sàkku ñaan ci sëriñ bi e, mu ñaanal ñu ci li ñuy yëngatu ñaanal askan wi ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm ak sutura ba lépp lu ñu ragal mu dax yàlla dàqal nu ko di nuy njaboot yëpp njabootu bàyyi sini ñang bi yëpp e, di ñuy sëriñ bi di ko joxaat sunu bopp yàlla na yàlla mottali yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim na ko na ma daal dinaa fexe ba ñuy ànd ak ñëpp ànd ak sa président ma ne ko rek bu soobee yàlla man daal amul ma ba pare bu soobee yàlla te comment man nga président yi bis sa na yàlla bokk jàppal li mu tax ma gën leen soxla itam président Idrissa Seck fa muy voté yéen a fa nekk kon nag kooku moom bu war ko fa may ngeen ñu ko man mii de waaye may ko Sénégal gi yëpp kon nag maa leen di jox sama bopp di leen jox président Idriss Seck jërëjëf jërëjëf may ma waaw dimbali ma rek waaw comme moom fu mu waaw tey ñu naan euh, kër Baye Sini waaw kër Baye Sini gi waaw li tax ñu fonkoon Idrissa Seck boo demee ko góor mhm. mag la ci sëñ bi boobu yi. Alioune Sow xam nga ku ne xam na ko ci président émission bi. dëgg la dem na ba bu ñu. si fex bu ma lay waaye yaa xam boo ma la def. waaye bu andee sama président moom jàpp dama la waaye. ndeysaan waaw moo tax. moom daal la de waaye ñu di nim nekk quoi. daal la de macha allah kontaan nañ ci wallaay wallaay kay. magam gisee di naan Papa Seck. waaw bu dee na loolu moom. waaw. laa nekkal fii. waaw mu nekk fii sama bopp ñëwuma ko. dëgg la. bis ba Idrissa Seck France. waaw papa dana ko a dox ci guddi la dox ci bëccëg xam naa ko. yow daal sa wax sa wax lu leer. dégg nga tey waaye booy yow yal na yàlla mottali kontaan nañu am ñu dal. yëpp di sant nag mbooloo mi papa ña ñu may sant yaa mu wax sarak ñu ñaan mbooloo mi bàyyi ci bi ñëpp ngeen jaajëfal ci turu Samba ak àpp yu ma àndal ak délégation bi ñu amoon ñëpp di ñaan saa borom yàlla na fi teew ndigal di xam ne saa bàyyi ci ne lii la bëggoon sama saa wax ñu ak seen biir ak sama mbokk yi laay waxal waxam na ko man su ko bëggul sama yi ba tàyyi ba tàyyi xam nga ba tàyyi kër kon yàlla yàlla fayal na ko bëgg mbokk bëgg mbokk bëgg wax ji du gudd danaa am lu ñuy rek di la gërëm di wax ne da baax rek waaye boo waxee rek waxaal nga fay def laaw la cat jërëjëf ngeen baax la saa bayaat neen ñu ngi lay gërëm di la sant di waajur wa yàlla ko yàlla jox ci yool bi te boole boole ko ñëpp ak képp ku nekk ci ak koo fekk di naan sàmm sàmm ba teewee ko diggante ngeen jërë ngeen jëf jërëjëf wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu nuyub islaam di ko di ñaan borom bi subhaanahu wa taala la tënk ca nuyoo ba yépp muy jàmm ak barke ak yërmande yàlla yàlla sëmbatal ko jotaay bi xam naa nag euh, kàddu yu tënku lay doon ndax jotaay bi euh, tënku na ba ba ba noppi tënk na boppam ndax loo xam ne da nga fa fekk say say baay fekk fa say kilifa loo fa def rekk ci ndigal nga ko defe ak ci lu mënta ñàkk suñu baay bële sëñ sugu sëñ Ahmed sugu di suñu wayjur day ñu léegi wëllëreem ak góor gi kon wàccuwaay ba ñu bàyyi ca góor ga rek moom nañ koy jox ñu ngi leen nuyu baax sugu di ñaan fan yàlla yàlla guddal ko yàlla wéral cër yi ak njaboot gi yëpp ñu ngi ko bokkal sëñ bi njëgeen sa sa sëñ pap Sow njëgeen moom itam dëgg yàlla di sëtu maam Ahmad Boro njëgeen euh, di soom di doomu sëñ Ousmane njëgeen doomu sëñ daam sëñ daam sëñ daam moom itam di wëllëre góor gi lool du jóge ci daara ja ñu ngi lay nuyu bu baax suñu góor gële ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di Baye Mor Baye Mor Diouf moom itam di wóolare góor gi di wóolare suñu mag sëriñ Mouhamad Seck xëy na euh, euh, waa kër Baye Sini Ñang dañ leen a ràññee ca kër ga ba kuñ ci gisul te gis sa njaboot sax nan la xàmmee ngir xàmmee sa wajur ca kër ga ñii ñu baax nag. ñu baax lool ndax ca lañuy yëngu ñun ñi ku ci am soxla rek buñ ko xamee danañ ca taxaw seen seen i këm kàttan waaye lépp la la la lay solo sa mooy wëllëre bi nga xam ni seen wayjur amoon na ko ak suñu wayjur lii nag euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa am dafa am benn benn waay bu bu ci banu Israël la bokkoon ci banu Israël mu ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jihaat xam nga xam ngeen sawaab sawaab yi ci nekk maanaam xasanaat yeeg ajraat yi daan yent yi man de damaa bëgg a jihaat yent bi ne ko axayun dàkk ndax say ñaari waajur ñuy dund mu ni ko waaw mu ne ko ci ñoom ñaar nga war a jihaat xam nga boobu ñoom ñu ngi dund absenté guñu léegi benn waay jóge fale ñëw ni yaa Rasulallah ndax sama wayjur samay wayjur bu ñu bu ñu génnee àddina rek ndax sama relation ak ñoom day dog am day woy yent bi ne ko ah kay ne ko lan ak lan moom lay ma def mën leen fekk mu ne ko arbaa xisaalin benn ba lay indi ba ca jiitu mooy fexe ba wëyal sa wëllërey wayjur yi mu fi bàyyi bari na ñun tey njaboot gi ak rëy jàpp nañu ak ñàkk ñàkk ak ak ak tayil jàpp nañu ba tey man Babacar Seck mi euh, Serigne Ahmed Sougou mii di suñu bàyyi wëllëre góor gi la damay gis ni bokkuñu naanuwaay rek bu mu ñëwee wàccuwaay bi ma war a jox sama papa duma ko jox te loolu du ngëneel dañuy wàcce suuf rek bi ci bi ci topp it ma koy dénkaane ndax jotaay yi rek ci lañ mën a occasionné wu pour euh, doon waa dénkaane ci as néew mooy xolli ñu ñu fexe ba sellal ko billahi alladi laa ilaha illa hu réew mi mënta dem mukk lu ni xol yi dafa sell ah, yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa ma atlaa bi qalbin salim te suñu maa ibrahima suñu maa ibrahima am ci maanaam am ci cër bu rëy ci sababu nuzul bi la ko may mooy fexe ba wéetal xolam jël di jël boroomam daf ko ci ñun ñi nga xam ne ay ay sëriñ lañ nag tey li nga xam dañ cee war a génne taalibe ñun ñu jiitu jiitu ca du sotti mais war ngaa mën a fexe ba liggéey liggéey boo xam tu saxiru dunya an qalbi fexe ba àddina nekk lu tuuti sa xol te dañ koo gis suñu kilifa yi waaw góor gi boo gisee xam ni yenuwul àddina am déet waaw kon mag ñi dafa amoon benn xaal bu ne ak ak ak ak ak ak tur tur bi bi bi sa xaal bi sa xaal yayoo ndax bakken yi juróom-ñetti bakken la an nafsul ammaara an nafsul mutmainna an nafsul mudassa an nafsu an nafsul radia an nafsul mardiya a nafsu an nafsu bakken booy nag ñun suñu góor gi sugu xam nañu nit ki ban bakken la amee ak ban tur la méngoo ba bakken boobu bu dee bu mën la mu moo moo ñu fexe ba tur woo raxas ko bu baax la mu fexe ba tur boobu gën a waaw gën a sax ci moom kon xol xol yi daal buñ ko gën defal rek mu mu gën a baax te ñii loolu dong la ñu bëggal mag ñi nañ gën a wàcce suñu bopp gën a liggéeyaat tey suñu bàyyi bàyyi si nii amaana amoon na benn ponk ci ci ci ci jaamu yàlla muy alquran la bëggoon nan njaboot gi fexe ba roy ko ci bëgg alquran rek bu bu ñëpp di kenn ñu ne moom de roy na baay bi amaana suñu baay ahmad suuf nii comme moom ku bëgg naa fi la guddi gi nelaw na fexe ba bañ roy ko ci loola ñu koy topp amaana keneen ak keneen moom dox mbokk rek moo doon yitteem na fexe ba roy ko ca loola bi ci topp góor gi li li sababu ñàkk ñëwam fii xam naa ni sama góor gi dina ko jaaxal lool bay moor dana ko jaaxal lool sama papa lii sababu ñàkk ñëwam fii dana jaaxal njabootu bay si ni lool lii sababu man condom ma ñëw dina jaaxal njabootam lool cena ba dafa am jotaay bu bu bu bu bu bu bu rëy bu fa am beneen bi moom it dafa dafa dafay soog a génn ci bërëbu fajukaay yi dafa soo génne génn ci bërëbu fajukaay yi yaram bi xaw koo xaw koo njett loolu mooy sababu ñàkk ñoom sañ waaj na ba tàyyi pour ñëw waaye njaboot gi ñoo ko tey ne ko mënoo ko kon loolu loolu mu ni ma daal boo wàccee ci daara ji fexeel yitte joo am rek nga bàyyi ko te demal ma fa yitte joo am nga bàyyi ko defal demal ma fa am na ñu ma a àndal waaye fonk boo xam ni xam naa ni góor gi fonk na ko njabootu bàyyi siini mooy saabu xaaluma leen damaa taal sama rek tegu ci yoon bi ñëw kon maa ngi jéggul nag ci kàddu yu góor gi Baye Mor sëñ bi na bu baax te kontaan na ci ci ci lii yéen a ngi matal kóllëre boobu yàlla na yàlla barkeel inna hadi tadkira wa man shaa taxada ilaa bi sabila wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf ñoo ngi lay nuyu di la siyaar xam naa yëkkati fi kàddu sax dina diis ci moom waaye euh, dafa war ci Serigne Saliou Touré bis bii dan daan ànd di fa ñëw di ko bàyyi seeni jàppee ñuy ànd di fa ñëw njaboot gi it bi nu jàppee bis bi nii dañoo bëgg bis bi sargal ci Serigne Saliou Touré dem noonu ba ci Serigne Cheikh Bamba Touré di xalifa Serigne Saliou Touré mi ko fi nekkal wax ci ak moom xam naa ni waxtu wi ak kii moo tax ak séegul waaye ni mu bëggoon a accès mooy ñu teel a xëy fekk la fi ndax xam nañu Serigne Saliou Touré jataay bi cër bi ngeen ko fa jox ak ni meloon ak Baye Seyni wax ngeen ko léegi njaboot gi wax nañ ko di la wax ne rek yow man nga fa teewal sëñ Saliou Touré boo gisul kenn nekkal fi sëñ Saliou ndax daan nga nekk fii ñu ganale la nga jël siwaat ca kër ga ànd ko ak moom ci lépp sunu doom ju baax ji waa kër Alaaji man xam naa ne kii doon wax ci sëriñ Souleymane Seck damaa xamul ci Serigne Souleymane Seck defe naa ni ànd na ñeent fukki at wala fanweeri ñeent fukki nag defe naa ko ko génne ci atam li ciy des lu bari agogo fa maam bu coow mii fekk na ko ci ndukk maam boobaag léegi-léegi moom fanweeri at ñi ko sëñ Modou Kara moom nu waxoon ne fan la fekk nan la teral mu ne ko ah, wax nga dëgg yow de xam nga ma bërki dem maa moom ñoo nekk ma wax ko ni sëñ Souleymane daraja yi yëpp dangaa jël yow daraja ji gën a ku am nañu ko fekkee bërki dem fii ci tànt maa moom ñu daje xàmmeewuma ko ba ba toog ci kaw bi ma ko séenee mu ma ñu ne sëñ Souleymane Seck ma wàcc fa ma toogoon te fa tooy ba di ko kaay toog fii mu lànk man ko nag yow daraja yi da ngaa jël daraja ji gën a tuuti toujours da ngay wàcc sa bopp di la wax na rek sëriñ bi sa njaboot gii njabootuk sëriñ Saliou Touré gërëm na leen sant leen ànd nañu ak sëriñ Saliou Touré ci liggéeyub sëriñ towaa bi ma seere ko man te lu ma wax fii ci tànt bi ko xam sëñ Saliou Touré ku ko xam xam ne bu ma seedee loolu dee ñu ko tàmpal ñoom ànd nañu ak sëñ Saliou Touré ci liggéey bi wax naa leen ko korog ba mu ñëwee dama seet si man ni leen yéen bi sëñ Saliou Touré ñu andi ko fi ci Sëriñ Tuubaa bari na ñoo xam ne yeex na noo ñëw waaye bàyyi seeni dafa bokk ca mag ñi njëkk a nangu topp sëñ Saliou Touré loolu nag su ko defee li ngeen def ci moom mu jëlee ko ci kër ga moo tax te loo wax mu ne sugu kon sëñ bi du ma guddal di wax na rek njabootu Thiès gépp bég nañu ci cër bi ngeen jox sañ Saliou Touré su fekkoon ne njabootu même ñu sant Touré waaye murid yi ñoo ci bég murid bu ne ci tànk bi rek bég nga ci cër bi ngeen jox sëñ Saliou Touré pour wax la ne la bis bi sañ bi moom yàlla dogal na sax dañuy gis kat dañuy nelaw ba yandoor waaye sa taalibe bi bii maa ngi koy nettali maam bu ma ne ko damaa gént muy sant naan seeni Bamba jërëjëf seeni Bamba jërëjëf ay seeni bamba jërëjëf moom mor mii mor tontu ci la ma wax seeni bamba jërëjëf la doon wax seeni bamba jërëjëf ay seeni bamba jërëjëf moom mii mu di ko wax boole ci noo xam ni moom moom bu ni ko waaw moom nekkati mor mii <laughs> Eh, waaw ca Touba am na ko ca Njaaréem waa Thiès ko am yaakaar naa ci la ko waa xam biñ koy indi sëñ Saliou sëñ Abdoulaat sëñ Mourtala sëñ sooy bu ñoo ci waxtaan bani raison Thiès Serigne Saliou Touré mii moo ñu fa doy jox leen ko jërëjëf Serigne Ahmed ci seede yi maanaam kon su ko defee ñëpp commencé rek teewlu ndax sëriñ bi moom ci soo ba tey ñu ngi soññee ay gara nga fa yoo xamante ni bii neexu woon a jóg bàyyi ñeneen a nga fa toog di ko xaar nii. xëy na ñun ñi ñoo xawoon a yéex a ñëg jóg waaye diggante sëriñ bi ak Baye Seyni doon lu rëy lu kawe loo xam ne yéen ñii xam ngeen lépp kon nag loolu moo tax mu ne na si ziar leen ndokkeel leen saafonte ngeen ci bis bi soog a dem ndax xam na fa Baye Seyni tolloon sëriñ bi sëñ Ahmed Sougou it li mu wax tamit kazaalika kon su ko defee ñu maase. ñëw nañ ci bi. di wax ni ñëw nañ ci bis bi. seen diggante ak sëriñ bi Koldé ak sëriñ bi seqoon na yéen. xam ne sëriñ Saliou Touré sekoon na ko ak yéen. loolu dong mooy suñuy tànk. ndax jataay bii. ndax jataay bii. fekk nañ fi sëñ Modou Ngom. li may dox si lépp mate na ko. te moom li may dox si lépp mate na ko. bu fi ñëwee. bu fi amatuma kàddu. bu dee ci kàddu sëriñ bi rek. daanaka sama kàddu wéy na. gi waaye kilifa gi ba mu fa ñëwee leeral diggante sëriñ Saliou Touré ak Baye Seyni Niang seen diggante ànd bu rafet ba ak nañu wëlante woon seen biir jàppante di dem mbiru Baye Seyni Serigne Saliou Touré da ko yitte woon lool nga xam ne su musaana dugg ci kër gi rek sëriñ bi génn lu mu nekkoon da koy bàyyi waaye moo taxit tey jii ma ñëw bëgg a jëmal loolee waaye bu dee kàddu yi moom sëriñ Mourou Ngom mu jël na kàddu bi ba noppi waaye damaa bëggoon a ñëw rek ba ñu gis ma. ñu xam ni yitte ji am naa ko ci bis bi ak yëg gi ak feddali it ànd ak ba sëñ bi àndoon ak Baye Séni ma fas ko yéene ànd ak yéen ñii loolu rek mooy samay tànk di yëgul nag ci yéex ñëw gi ndax boobu ba léegi bari woon ay ziar ci kër ga ay daayira yu fa ñëwoon fii tamit am na yeneen daayira may xaar ma ne naa ñëw rek ci gis bi ba ñu gis ma. ndax kilifa kat bu la mënee jur. ndax kilifa kat bu la mënee bàyyi léppam. Euh, sol dàllam. sol dàllam. dox ak tànkam. ba ci kër Serigne Saliou toog ak yow. wax la lu mel nii. boo ci ñëwut. ko mën a layal. te keneen du ko mën a layal. moo tax ma daal di ñëw. waaye ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. waaye kàddu yi moom. matoon na rek ci sëñ Modou Ngom jërë ngeen jëf. jërëjëf. nee leen amiin. bismillaahi rahmaani rahiim. dafay mel ni kàddu gi fi mu ko joxee yaakaar naa du hasard ndax néanmoins président Idrissa Seck lañ fi teewal. mais ku ne xam na ne yaakaaruma ku dul Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba kon su ma di suñ dee dugg si mu ne nan mu jox parole mu dajeeg doomu jaamu sëriñ Touba ñëw ñu ngi ko dugal kon dafay mel ne man dugg naa ci dugal googu ñu koy dugal kon jox ma jox parole yaakaar naa ne du hasard ma ñëw nag ci délégation bi nga xamante ne ni ngeen ko waxee léegi nii président Idrissa Seck. ku nekk xam na ma moment bi fu mu toll ci moom ci wàllu jot ci wàllu coordination ak ci lu bari loo xamante ni ku nekk xam na ni boobu mi ngi siy liggéey mais li mu doon fii ci kër gi war na noo xam ni fii président Idrissa Seck du fi jommi barab bii mënu fee jommi moom ndax dafay bokk fu la dëkk ni ko grand am ma waxee léegi nit ñi bokk ci njabootu président Idrissa Seck yaakaar naa ne du ñu jël ni fii ndax ni ñu ko waxee léegi Modou Fatma Niang la ak Mbaye Sow Dia kii moo jur Mbaye ak Niang kii moo jur seeni ñaŋ ba pare ñu tuddee ma man Modou ma Niang boobu kon yaakaar naa ne ñu ñii ci suñ kër lañ ñëw xëy na du ñu guddal ndax temps bi fi mu toll dañuy jiital si kàddu yi ndax li nga xamante ne nii mooy kàddu yi jóge si kilifa bi. dana am ci mbooloo mi ku ko joxe waaye liñ siy tënk rek mooy leen dañuy jiital suñu kàddu ci ziyaara ak ñaan ci turu président li ñuy ñàkk xam-xam-xam xam nañ Cheikh Ahmadou Tasrif ci dégg moom mooy kan ñu xam Serigne Ahmed Sougou mii xam taxawaayam xam digganteeg Cheikh Mouhamadou Mourtada xam leeru sëñ Mourtada mi nekk ci moom mu leer ni nañ ñu xamit Cheikh Amadou Tasrif ci baatin ba nga xam ni ku laal ku mu laal kookee ku ko baax si baax googu la ñuy sàkku suñu ngir suñu jëm jii di président Idrissa Seck li muy yóotu suñu borom defal ko ci ndam ndax yéeneen ci Sénégal loolee nag ñun ñii di njabootam ndax tey jii su fi baa baara jang nii lim nga ko léegi booy nii ku ci nekk xam na ni dem na ba jeex tàkk boogaa mbaay ak mouvement leeral bépp sëñ Cheikh ak mouvement yoonu ndaw kon yaakaar naa ni kër gi yëpp président sa Seck la kon ñun bu ñu tawee fii dafa mel ni dañoo ñëw ci lu ñu bokk te bu dul woon ak circonstances yi mu nekk moom moo amul yéene teewal boppam fii loolu nag ñu leen koy seedeel di ñaan mbokk gi ñu jàppale président Idrissa ndax jàppale seen bopp la nit jàppale sa bopp mooy jàppale sa mbokk ñu ngi leen ciy tàllal loxo xam naa ni kàddu yi. Cheikh gay Ponkal mooy suñu maam. kon fii ci lañ bokk diggante maam Sini Niang maam Cheikh Gueye ak maam Assane Seck defe naa ca marché benn kër la samay ndijaay laa jàkkaarloo nii xam naa nag Sini moo ma gën a miin ñu bokk fi ci biir ak ci biti ñu ñëw fi nag ci turu président Idrissa Seck mu soññee pour ñu am délégation bu mat sëkk yegg si fi ndax moom moo amoon yéene teew fi yàlla dogal bis bi sax delloo sigul ci la perte wala mu ñàkk doomu ndeyam di Sidi ñu denc ko keroog altine diggante bi liy xewaat fi mu war a xëy tàbbi ci campagne mais li muy xat-xat yépp madame Seck ci suba ba léegi mi ngi con coordonné ak madame le maire Binta baas pour délégation bi yegg si fi pour wan leen ni ci këram la ñëw li murid wax léegi moo ci nekk dañ ne 19 candidats taxaw na Thiès am ci doom waaye nag randu leen am ci doom mu gën a neex nag diggante bi am fi doom kon mu mel ni ñun ñoo ci nekk ñun ñëpp di la ñaan ci sa leeru maam yi ak seen barke nga ñaanal ko yàlla defal ko ndam bi ci desit liñ naan garab bu la sutul du la may ker waaye moom xereñam ak expérience am ak taxawaayam defe naa ni buñ tegee profil yëpp kenn du ko nattable te far ci taxul ñu koy wax yéen ñi màgg ak moom xam ngeen ko donc dañ ne woon nañ profité rek ndax suñu kër lañ nekk bu ñu neexee tarxiis tuuti suñu ndijaay dinañu ko may maa ngi ziar ñëpp di leen tàllal loxo ci loolu ñu jëm sëriñ nga ñaanal ñu yàlla def ci ndam bu sedd guy te mu jig senegal jig réew mi jig askan bi jig diine ji loolu lañ ci doon sànni maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp ci turam ak turu délégation bi ñu jox madam Binta Baas xëy na mu clôturer madam waaw mais boo amee loo ciy sànni rek waaw alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah fii ñu tàbbi si yàlla def ñu toog ak suñu wëllëre maam say Sarr frère am sëñ Jëli Sarr di ñu gunge ci lii ñu nekk ñuy diisoo guddi ak bëccëg li murit wax moo ci nekk ñuy dugg si mu dugg si du hasard ci maam yi la woon ba fii kon ñu ngi ñaan sëriñ mu taal bal bi mu tàkk benn yoon ñëpp noppalu ndax Sénégal ñëpp sonn nañ asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, tàkk na xam nga li dafa nekk xam ne xile kenn la si ma dafa bàyyi lu guddi jot mu ñëw fii si kër gi seet si Baye Sine góor gi wóoroon ba ma ñëw ma baara ma ne ko ah man man kii góor si bëgg mu ñu jàppale ko maa mun ko ko nga si ngir politique dama laa jàppee ngir Baye Sine ndax ku bëgg Baye Sine ma bëgg loolu laa ko jàppee. xam na maaraamee di sanu rakk suñu lépp bëgg mu laa wax mu téléphoné président sama kanam. wax a ko ak leneen ak loo xam ne séq nañ ko suñ suñ diggante ak président kon moom mii moo ko waral muy Mara Seck mii moom tamit ñu ngi lay ñaanal sa borom guddal saw fan ba lii ñuy yóotu suñu borom xool si tawfeex te nag te am naa suñu nag ndax wax naa ko président encore ba ma demee si benn booy bi toog man ko giñ naa ko Serigne Jéeri boo ñëwee Waadane di nga fal. ñu laa ko waxee. moom a moom it su ngeen xooloo ma jox ko loxo ba ñëw Waadane boo dikkee bal bi tàkk ñun seen jéeri lañu jëm jërëjëf. Thank you.

Something is a lady, he said, I'll say it's a man. Come to town, back by the door, yeah, but you have one year. The devil, you're here. Yeah, everybody, the devil. Something is a lady, he said, I'll say it's a man. Back by the door, yeah, but you have one year. The devil, you're here. Everybody, the devil. Something is a lady, he said, I'll say it's a man. Kon borom bi kii dugg si. Faa. light. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa la ilaha illallah. dëgg la bur yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah mustafa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah ñu ngi la koy ñaan ci seen mbaax Cheikh Mountakha Serigne Bassirou nga yàgg beew fekke ci barke maam Cheikh Ibra Fall digal la ñu noonu kon dañ doon nuyoo rek sëriñ bi dama ko nuyu mu ni damaa gëj dégg sa kër su Baay Fall ki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu waaye nuyoo boobu it nag ñu koy jël di ko teg ci loxo yi sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bii ka ca jiitu mooy sëriñ Ahmed Sougou moom sëriñ Ahmed Tasrif Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan di sàkku ci moom mu tegal nu ko ci loxol sëriñ Bamba Sougou mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Jéeri sëriñ Ahmed Tasrif Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan di magam sëriñ Bamba tegal na ko ci loxol sëriñ Maxtaar Sugu mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Géeri Waadaan mu ñaan yàlla guddal seenu fan wëral seeni cër ba li ñu naal ci lislaam bi naan ko ci seen kër maam suñu borom bi mottali lépp ñu ànd kook ñoom maa ngi nuyu bokk yi fi teew yépp di nuyu itam kilifa yi ma fi fekk yépp ak yi ma fi fekk doonte mënuma jaar ci seen pour ñoom ñëpp waaye maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar itam sama waajur yi nga xam ne yàlla def na noo ànd jóge Tuuba nga xam ne ca suba la bëggoon a ñëw wala mu fanaan si woon démb waaye bi ñu jokkoo mu xam ne dinaa ñëw fii nu war a àndante ma xëy yitte yi yi teq na ma nekk tuubaa am yu may lijjanti ba fa la ñuy jullee tàkkusaan doog a agsi fii ma di ko xamal mbooloo mi ne sëriñ daam mii kat euh, teq-teqam ci man la bàyyi ko waaye bàyyikuwul ci moom ko daan defe ci ndigalal magam sunu way jur sëriñ sugu sëriñ jaal sugu noonu rek la ko bëggoon a defee ànd ko njaboot gi waaye sëñ Ahmadou ngi nii ak ñi ma àndal ñëpp teew nañu daan teewe sëñ Ahmed maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay siyaare itam bu baax te di la ñaanal suñu borom bi guddal saw fan wéral say cër ba li nga yéene lépp ci liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko sa sëriñ Jéeri Waaroon ak sëriñ Tuubaa nga mottali ko yow ak sa mag yu baax ya nga bàyyi ci kër gi ak njabootu sëriñ Jéeri yépp di nuyu itam sëriñ Bamba Sougou ñu ngi nii moom sëriñ Bamba Sougou moom sëriñ Ahmed Tasmir Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan mu nekk fi moom itam ak magam sëriñ Ahmed Sougou moom sëriñ Bamba ak sëriñ Abdou Salaam ak sëriñ Abdou Rassakh ñoom ñëpp ñëw teewal fi sëriñ Bamba sëriñ Ahmed Sougou itam ñu ngi nii di taawu sëriñ Bamba mi nga xam ne mooy kilifa kër gi mu ànd ak magam soxna bint sugu kon sëñ moor noo ngi lay nuyu yow ak sarak yi nga àndal yépp bokk baay siini li ko dalee ci pap ñang sëñ aadama sëñ aliyu ñang ak sëñ ahmad tasrif ak seen bokk yépp ak soxna yi ak njaboot yi ak dëkkandoo yi ñu ngi bu baax di am mbégte mu yaatu ci jataay bii ndax dundal ngeen sunna dundal ngeen ak taalibe nii rekk la ko seen way juroo bëgge woon di alaji bàyyi siini siini ñan waaye ci biir loolu ma dugal ci délégation boobu moor mujj tudd de délégation président Idrissa Seck maa ngi leen di nuyu te di leen dalal si fii nga xam ne seen kër la noonu ko sëñ Ahmadou waxe di nuyu itam soxna si nga xam ne moo jóge kër bàyyi sëñ saar di suñu way jur mu bokk bàyyi bokk maam bokk itam kër seex Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak mboolem bokk yi ñu bokkal teew fii ci jotaay bi yépp ñu leen siyaare euh, sëñ Mor fii de ma jël fi kàddu dana metti lool sëriñ euh, Ahmed Sougou mii gis suñu waajur bu fi nekkee bu nuy wax dañ koo wax ci kàddoom rek ak ñaan ko ci ndigal sañ koo wax waaye sañu fee wax dara sunu rak ñu ngi fi mënoon nañ leen waxloo muy sëriñ Ahmed Sougou moom sëñ ma sëñ Ahmed mi ngi nii sëriñ ma Sougou itam moom sëñ Ahmed mi ngi nii ñoom ñépp samay rakk lañ yoo xam ne ku ma ci joxoon kàddu moo bëgg a wax man na ma ko waxal te itam def naa ne mooy gën a mat mooy gën a rafet xanaa dañoo bëgg rek ma yëkkati kàddu na ma ko daan defee rek ci bis bi ndax bis bi dafa nekk bis boo xam ne bisub sëriñ jéeri waadaan la ndax li tax ma wax ne bisub sëriñ jéeri waadaan la mooy bàyyi siini dafa amul lu mu sëñ Ahmed Tafsir sugu lu mu am rek sëñ Ahmed Tafsir woo ko defal ginnaaw yàlla ak yonentam way juróom wa jël ko mu doon tu tànk toll ci juróom-ñaari at mu teg ko ci loxol sëñ Ahmed Tafsir sëñ Ahmed Tafsir toqi ko yar ko jubbanti ko jubal ko ba ñaanal ko ne ko delluwaatal ci say bokk bàyyi siini ñëwaat fii ci Thiès fekk fi ay bokkam taxaw fi taxawaay bu tal ne bi fi taxaw ànd ko ki bokkam jàpp naa ne ku xamoon bàyyi siinu danga xam ne doyee diwul ñàkkul fulla te ku am jom la te ku am pasteef la te ku nangoo liggéey la waaye ku toqi ak njabootam la te loola ci ngi ko jëlee ci sëriñam ba sëriñ Ahmad Tasrif Sougou sëriñ Ahmad Tasrif Sougou nag day doomi wàlliyu doomi sëriñ Jéeri Waadaan la sëriñ Jéeri Waadaan nag sunu borom moo ko tànn mu bokk ci ñamu tànn xamal ko àdduna li ci biiram xamal ko àllaaxira may ko ab cër xamal ko ne ko bokk nga ci samay ndaw ci kaw suuf waaye mission boobu ma la yónni da ngay taseeg Cheikh Ahmed Bamba xaadimu rasul moom laa la booleel loolu yaakaar na ni yàgg ngeen ko dégg ci jataay bii sëriñ Jéeri feeñ Cheikh al Xadim Cheikh Ahmed Bamba feeñagut mu ne am naa sëriñ ndax mbooloo maa ngi koy topp dafa feeñagul waaye bu feeñee moom la ma suñu borom bi tabaraka wa taala booleel la ma leen di jox firnde benn mooy doom ju mu am bu dee góor moom la ko tuddee bu dee jigéen mu tudde ko soxna jaara busu ñaar la am ñu tuddee wa Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul kenn ki Fatimatu bint rasulullahi la ko tudde booba Cheikh Ahmad Bamba wooteegut kenn ki way juróom la ko tuddee kon de xanaa ñaari turandoo yooyu moom yàlla na ci moom ndax boobu Cheikh al Xadim wooteegut keroog ba Cheikh al Xadim wootee njëkk loolu sax mu ne mu ne noon laa noonu laa koy gàttandoo waaye la ca des mooy su boobaa su feeñee dana am leen de tubaab bi waaye su boobaa day jéggi diine bu dikkee ñëpp teel booba la muy junj mooy exil bi tukki boobu lay kii ñëpp xam nañ ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul bi demagul ci géej gi amul benn sëriñ bi fi mën a woote te woote booba taxaw tubaab yi danañ lakk sa daara ba daara yi pour ji gis ngeen ko ak yeneen daara ak yeneen daara waa daan gi nga xam ne sax fi la sëriñ jéeri doon wootee ca njàmbur lakk nañ ko ñaari yoon jëm ñetti yoon tubaab bi lakk na ko archive yépp da koo taal ak téere yépp mu ne Cheikh Ahmad Bamba moom mu man suñu borom booleel nag su feeñee day jéggi diine waaye bu dikkee ñëpp tël jëgg nag mag ñi danañ ko xam mooy wuti loo xam ne amul fi nga nekk ngir nga jëfandikoo ko xam nañ ne kon booba lislaam dafa rafle woon tumuranke woon ci senegal kenn mënu ko fee woote moom la sëriñ bu ñëwee nag bu wutee lislaam bu delsee ñëpp jariñoo lislaam booba taali daara yépp fay nañ ko sëriñ sëpp taxaw nañ pour tubaab bi taxaw na pour jàmmarlante ñoom waaye bi Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul ñëwee xam ngeen ne fenn fu ne kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma nga fay jolli kon nag kooku mooy sëriñ jéeri mi nga xam ne moom la bàyyi siini mi àndal damay bañ a guddal ndax wax waxtu xat na te itam damaa toog ci kanam sama kilifa waaye loolu rek ma xamal ko ci ñi nga xam ne xamuñu kan mooy bàyyi siini ak ku mu àndaloon ak ko defal lim ko defal mooy kan mooy doomi sëriñ jéeri waa doon muy sëñ ahmad tasrif sugu sëñ ahmad tasrif nag dama ne mën na lu ne ndax tax li ma ne mën na lu ne day doomi sëriñ jéeri waa daal sëriñ jéeri waa daal moom kenn nattable ko Serigne waa Wadane bàyyi ko fi 1923 moo gën a wér ci li ñuy wax ñenn ñi ne 22 waaye histoire moo bindoo noonu waaye nee na 22 ci njëlbéen nga moo gën a moo gën a wér bàyyi ko fi ak rakkam ñuy wax Serigne Bamba Sugu sëriñ Bamba Sugu moomu moo jur sama woyu jur Serigne Wadane Serigne Wadane moo jur sama woyu jur Serigne Wadane Serigne moom moo jur sama woyu jur Serigne Wadane Sugu. sëriñ Bamba Sougou moom moo njëkk a toog xalifa sëriñ Jéeri Wadane sëriñ Ahmad Tasrif Sougou wëlbati ko ànd ak sëñ Bamba Sougou ànd bu mat sëkk bu rafet bu dara manqué def ko muy sëriñam def ko muy woy juróom def ko muy léppam ndax bi fi sëriñ Jéeri di bàyyi ko booba sëriñ Ahmad Tasrif su ay atam rombul fukki at ak juróom-ñaar lépp lu mu war a defal sëriñ Ahmad Tasrif defal na ko sëriñ Bàmba sugu magam lu nekk defal na ko ko man nii li may doon doon tout tànk fekke naa ci lu bare bare bare bare bari bari Bàmba sugu du jóge ci këram di fekk sëñ Ahmad Tasrif Sougou di toog di waxtaan ak moom sëñ Ahmad Tasrif Sougou di jóge këram di fekk sëñ Bamba di waxtaan ak moom bëgg nit nag doyloo ko gëm ko wóolu ko te ngeen bokk ndey ak baay nga jàppe ko muy sa sëriñ jàppe ko muy sa waajur jàppe ko sa muy lépp moom la sëñ Ahmad Tasrif bu defoon sëñ bàmba man de fekke naa bi sëñ bàmba jóge këram ñëw seet sëñ Ahmed Tasrif ñu toog di waxtaan sëñ Bamba jublu penku sëñ Ahmed sugu nekk ci wetu càmmooñam ñii toog sëñ Bamba di waxtaan ak moom ci sëñ Touba ak sëriñ Jéeri waaroon rek ak sunu borom ndax waxtaanam daawul génn ci loola sëñ Ahmed sugu dafa mujj mbëkk perma ba génn ca biti kooku nga defal ko koo bokkal ndey ak baay kooku de diiroo ko mbàgg kooku diiroo ko mbagg de ku ko joxub cër nga ku ko doyloo nga ku ko yaakaar nga loolu moo tax ma ne leen man awma sago sagoog Cheikh Ahmad Tafsir Sougou yëfam fu ma ko fekk ca laa bokk buñ ma ca boolee ak buñ ma ca boole wut ndax nit amul lu ëpp kilifaam ku teral sa kilifa rek teral na la te man lu ma am ginnaaw yàlla ak yonente mu sëñ Bamba Sougou te sëñ Ahmad Sougou bokk ak moom wenn way jur bu jigéen ak wenn way jur bu góor jël ko tege teg ko foofu mu ko teg kon teraanga jooju man mënu ma koo fay suñu Ahmad Tasrif Sougou wëlbatikuwaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na ci biir kër ga yoo xam ne sama làmmiñ sax ñi ma wu koo tudd sëñ Ahmad Tasrif Sougou séq na ko sëñ Bamba ak njabootu sëñ Bamba sëñ Ahmad Sougou ni di sama kon nag na ngeen xam ne yéen waa kër Baye ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm bu baax sëñ Ahmad jàmbaar la lool lool lu mu am ci yoon bi rek moo ko liggéeyal boppam lu mu ci am ci yoon yi moo ko liggéeyal boppam bàyyi siini moomu nag moom rek la doyloo woon moom rek la yaakaaroon moom rek la bëggoon waaye alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom fay na ko de bu mu delsiwaatee fii ñépp xam nañ ne liggéeyal na ku baax kenn xeebu ko kenn tuutalu ko kenn doyagula ko mësa bi kenn dara mësa la ci dara lu mu soxlaa faj faj na ko lu mu soxlaa def def na ko yéen njëriñ njabootam dale ko ci noor mi ba ci gën a kër pour tuut tànk teraanga ju nekk indi ngeen ko ci dëkk bi teraanga ju nekk def ngeen ko ci dëkk bi seeni bokk seere nañ ko da ngeen daan tukki ba ñëw fanaanse bàyyi siini xëy si leen wala ngeen xëy si bàyyi siini mu ne loo ëndaale nga ne nàngam mu ne andi doo ca teg baat nga jox ko mu dem faje ji soxlaam loolu def naa ne loolu naa ne ku nangu moo koy moo koy ku nangu ak ku bëgg ngërëm moo koy nangu loolu sëñ bi doon junj fii sànq di sant sekk dafa am ku ñëw ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg jihaat mu ne ko ahiyun waalidaak mu ne ko naam mu ne ko fa fiihima fa jaahid ndax say waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jihaat ci ñoom kon loolu lu la nit bu ay woy juróom dee dund mën na caa am lu ne sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne min abaril birri an yazilla rajulu ahla wuddi abihi bahda an tawalal ab li gën a baax ci mbaax mooy nit kuy mot li kollëre kollëre woy juróom ginnaaw ba ay woy juróom dëddoo kon ñi fi teew ñépp seen wëllëre way jur la ñu ma fi dégg seen way jur lañ daan jëflanteel te ñëpp teew nañ ñëpp teew nañ kon loolu lu rafet la nit nag mënta fay ay way juram nit mënta fay ay way juram sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen mënta fay ay way juram ndareeda da ko fekkoon mu doon ab jaam yu jënd ko mu doon ab jaam mu jënd ko goreel ko goreelaat ko mu nekk as gor loolu rek mooy tax mu fay ko laa yajzi waladun waaliduhu illa an yajidahu mamlukan fa yastarihi fa yahtiqahu kon loolu rëy na waxi sallallahu alayhi wa sallam la kon ma ne li wolof njaay di wax mbay ci sewu tànk loolu moo am solo jërë ngeen jëf gàccaaru leen seen way jur bariyaa nañu gàccaal seen wayjur ngir àdduna mooy yàlla ma ne la gan te dafa la teraanga ngay sol mbubb yu rafet mbubb yu cher kër gu rafet sa bàyyi di fanaan ci pantre wala sa ndey wallah laa xawla wala quwwata wal iyaasu billah te am na fi te dara yóbbewuñu ko lu du ak tubaabe ak roy lu bon la mag ñi daan wax bañu tubaab day nag jaamu yàlla ñuy dong moo ko waraloon mësoor nga sa ndey ak sa bàyyi nefi nga yor alal jurul jeex man leen a dëkkal man leen a wormaal man leen ne suturaal ñuy sol mbubb yu rafet dëkk fu baax war oto bu rafet di lekk lu baax la nga yor nga fu yoog moom boo dee góor ak sa jabar dong la booy joxe sax booy jox sa bàyyi wala sa yaay ji fanaan ci kër gi danga naan ko joxal meer bi buy xëy yow xëy nga ba dem di ko jaarale ci sa loxoy jabar loolu est-ce que na est-ce que loolu jaadu na li sa yaay daj ci sew juróom-ñeenti weer ba fukk nelawul guddi nelawul bëccëg nga judd muy las lasi di la nàmpal di la sàmm ba nga mucc ànd ak sa way jur ñu dalal école mbaa alxuraan ngay jàng ba àgg fa nga àgg ngay fay loolu sa ndey ak sa baay ndax loolu jaadu na jël ab gardien teg ca buntu ba bu sa bàyyi day ñëw da ngay wax kokkat la téléphoné diwoo fi ñu ne ah papa da waroon a téléphoné bala ngaa daataan ñëw sa bàyyi bu mënta am sa kër am ci sa néeg ak kër bu mënta am ci sa kër ab néeg am fa wàccuwaay sa yaay mënu ko fa am say bokk mënu ko fa am yàlla na yàlla musal ci jooju teraanga ci jooju teraanga rek la moo xew ma ne nan si siwaat suñu xel way jur yi ñoo jiitu de lépp topp ci man nag ku ma ko gis ku nekk xeeb naa la ku ma gis nga xam ne noonu ngay dunde soxlawu ma sa dara xeeb naa la nan teral suñu way jur yi ñoo jiitu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ma masaan ñëw di jébbal si danaan ana say way jur ndax diisoo nga ak ñoom ndax waxtaan nga ak ñoom loolu mooy lislaam waaye lii xew léegi amul solo adduna amul solo oto bu rafet bi kër gu rafet gi dégg nga yére yu rafet yi dara amu ci solo bala nga koo xam rek nga étage septième étage R plus sept ba faatu ba faatu sa doom ak say jabar mooy njëkk ne na génn dem ca morgo ba mbaa ci jàkka ja doo fa fanaan doo fa yendu buñ la soolee ba nga ñëw nag ba ñëw ña ngay commencé nag di liggéeyanti la nga fa bàyyi ba xam lan ak lan la ña la suuli woon nag bu dee góor ñaa ña ngay xool ña nga fa bàyyi ci ay jigéen ñoom kan lañ ciy jël boo paree walla jigéen jaa ngi xool bu paree nag ñi doon ñi mu doon àndal kan laa ci war a mën a àndal xam nga ne ji àdduna ñàkk na solo lool te barab nag lu mat a xool la mooy bàmmeel buñ la fa xasee ba dugal yaakaar naa ne day da nga wax lu set loolu war a fi wax na wax lu set foofu la ñuy waxee lu set ndax ña yàlla yónni de moom xàmmeewuñ kenn kenn dëgg rek lañ xam te sallallahu alayhi wa sallam nee na law kaana ahadun yanju min dammat al xabri la najaa maas ibnu jabal bu kenn doon mucc rek maas ibnu jabal dana mucc kon nag nan bàyyi xel ci àdduna xam ne amul solo walillahi miraasu samawaati wal ardi lépp fii lañ koy bàyyi kon nag nan ci góorgóorlu suñu digganteeg suñu boroom waaye nan tàmbalee nag tam ci suñu way jur yi nga xam ne borom moo nu ko digal sunu borom dafa wax ci alxuraan ne wa qadaa rabbuka alaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan ñu ne kon ndeke daraajey way dara gën koo màgg ndax suñu borom ba mu tuddee boppam ay way jur ci teg kon mane bu buñ jàpp àdduna gi ne lu am solo la kenn ku nekk ci ñun yii gis nga démb wala bërki démb sab xarit wala sa mbokk boo xam ne suuli nañ ko ba ñëw te xamoo ndax ñu ci ciy toppam déet te amul kenn ci ñun koo xam ne suul nañ sa mbokk nga ne damay fanaan wettali ko wala damay yendu wettali ko wala wala muy ndey wala muy bàyyi wala muy doom mu ne dugalaaleel ma ci bàmmeel bi ndax moo ma yoroon déedéet amut yow kay da ngay ñibbi bàyyi ko fi boo dikkee nag naan sama wéeruwaay ba sama yaakaar ja torox naa fu ma jëm loolu rek ngay wax defe ne moo la yoroon ana sunu borom bi tabaaraka wa taala mi la bindoon bind ko sallallahu alayhi wa sallam leen laysa minna man latamal qudduuda wa zaqal juuba wa daa bi daawatil jaahiliya bokkul ci ñun koo xam ne musiba boobu mel wàccee ci yow ngay def loolu nañu xam ne kër àdduna kërug jaaruwaay la sàkku lu baax ak wut lu baax ak fàggu lu baax kon nag góorgóorlu bu baax sëñ Mor ñu ngi leen di sant ñëw ak sarak yëpp mu ngi leen di gërëm ñëw ak sarak yëpp siggil ngeen kër sëriñ Jéeri Waadaan ndax kenn mësu fee ñëw rek di leen àttab xuloo wala mu leen àttab xeex doyloo ngeen li leen seen bàyyi bàyyeel yam ngeen ca doyloo ngeen seenu ñaq tey ngeen seen taalibe tey ngeen seen islam tey ngeen seen i bokk te loolu rek mooy asgor asgor bu nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey na moo rafetul bokkam dara desatul ci moom kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal ci barke Serigne Jéeri Wadane. maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi fi teew. ñu ngi leen di nuyu. nuyoo boo xam ne. mi ngi bàyyi ko ci kilifa gi muy sëriñ Ahmed Sougou mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Bamba waaye mi ngi bàyyi ko ci kilifa gu mag gi muy sëriñ Bamba mi nga xam ne lépp loo xam ne dañ ko fee def rek moom lañ ko defal ndax luñ fi def rek si Ahmad Tasrif lañ ko defal te si Ahmad Tasrif moomu genn njaboot la am te sëriñ bàmba moo nekk ca bopp ba bu ngeen seetloo jataay bi bi ñu toogee ba léegi sëriñ Ahmed bu sañoon dañuy toog fii ci kaw ndax xoolañu suñu jëmm ji dañuy xoole jëmmi sëriñ Bamba sugu ma ñu bàyyi ko cër ba nga xam ne moom la jox kilifaam googu moom lañuy ñuy xoolee ndax ci moom la ñu bàyyi ko moom nag kon mu ngi leen di nuyu kàddu yooyu sëñ Ahmed joxaat ñu ci ndigal na nañ ko àggale ci mbooloo mi ñëpp. sëriñ Bamba mi ngi leen di nuyu yéen njabootu ji Sini ñan nuyoo boobu mu ne mi ngi leen di sant bu baax a baax mu ngi leen di gërëm bu baax a baax gis na seen taxawaay ci kër sëñ Ahmadou Tasrif gis na fa ngeen féetee ci kër sëñ Ahmadou Tasrif te buñ nekk kër sëñ Ahmadou Tasrif nag mbooleem buntu kër yi ci biir kër sëñ Ahmadou Tasrif buntu kër yooyu mooy buntu kër sëñ Bamba buntu kër sëriñ Mama buntu kër sëriñ Ahmed mii ak soxna yi nga xam ne njaboot sëriñ Ahmed Tasrif yëpp gis na njabootu alaaji Sini Ñang ak njabootu Baye Aatu Ñang seen taxawaay ci kër yooyu seen taxawaay nag du lenn lu taxawaay ab taalibe digganteem ak sëriñam ngeen def loo xam ne mooy li sëñ Ahmed Tasrif bëgg te mooy ngeen ànd nekk benn di diglu ndigal ku ma ci yéen ngeen jiital ko lu mu wax yéen ñëpp ngeen topp ci àndandoo nekk benn sëñ Bamba mu ne mu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal fi ngeen bëgg a àgg yëpp yàlla ngeen fa àgg ci bàkki si Ahmad Tasrif nee na ba fi sëñ Ahmad Tasrif su ko jugee 1993 ba léegi gis nañ seen jur wa ni mu àndee woon ak moom bi ngeen gisatul seen wayjur wa gis nañ ni ngeen àndee ak moom ak njaboot si Ahmad Tasrif yëpp. kon mu ngi leen di sant xam ne jamono ji dafa am nu mu mel ci moom waaye bu sañoon mbooleem lu bokk ci sëñ Ahmadu Tasrif muy lu bokk ci moom ci deret ak ci njëbbal ñëpp ay àndandoo ñëw ci bis bii ndax bis bii kat bisub si Ahmadu Tasrif la kon mi ngi leen sant moom sëriñ bi di sant nag mbooleem kilifa yi fi teew ci bis bii ndax teew googu ngeen fi teewkat moom ngeen ko defal ndax alaaji siini ak njabootam alaaji aatu ak njabootam képp ku leen yëkkati rek si Ahmad Tasrif nga yëkkati képp ku fi ñëw loo fi def rek moom nga ko defal ndax li nekk fi moom lépp sëñ Ahmad Tasrif moo ko defal kon bu ngeen ñëwee taaral ngeen bis bi muy njaboot sëriñ Jéer gi fi teew yépp te ki ci bopp bi ginnaaw sëñ mu sëñ Daam Sugu mi ak sëriñ Xaadim dégg ngeen ko kàddu yu rafet yi mu wax ci sëñ Ahmad Tasrif sëñ Ahmad Tasrif nag dafa am loo xamee ne il faut ngeen xam ko sëñ tuubaa moo ko yaral ak boppam yar googu ak boppam nag moo tax tey jii ci ndigalu sëñ Ahmed ak ci sëñ Bamba ak njaboot yëpp ñu ngi leen di fàttali bisub si Ahmad Tasrif bi mu mel ne tey jii dafa mel ne que ne mooy avant première ñaar fukki fan ci weeru koor bis boobu nga xam ne sëñ Ahmad Tasrif way juróom a sëñ Jéeri ba mu koy juree sëñ Touba da ko yar ak boppam woo ko ca njaareem ñaar fukki fan. ci weeru koor di ñaar fukki guddi ak benn sëñ Touba liggéeyloo ko mu def liggéey ba mu gërëm ko ngërëm loo xam ne ñett yi la ko sëñ Touba waxoon Ahmadou defal naa la loo xam ne mbindeef dut la mën a yàqal ak ko ànd ak yow Ahmadou defal naa loo xam ne ne ku yëkkati ab sarax di ko joxe xelam doo daj ak ko ak yow Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis bii fu mu la fekkat na nga ko teral Sëriñ ba mu ne képp kuy soppeem képp ku yaakaar si Ahmadou tasrif bis boobu lépp loo man nanga ko def képp lépp loo manut nanga ko jéem ndax seen yëkkatiku ci bis boobu la nekk te sëriñ Ahmad Tasrif li mu fi bàyyi lépp amul lu ci gën a kawe bisu ñaar fukki fan ci weeru koor gi kon nim leen sante ci lu sant ko li ngeen ànd ak moom nee wér na ko ne lii ñëw noonu ngeen noonu la leen ci sante te dara jiituwu ci nag bis bii di ñëw muy ñaar fukki fan ci weeru koor gi ci nekk ci ah, ñaar fukki guddi ak eh, eh, weer wi weeru mars wi ca fin ba la màggal gi doon soxna si ñu ngi la ciy soññi di la ci invité mbooleem kuy ab jullit ñu ngi la ciy invité te di xam ne képp ku fa teew sa aaja dañu faju àddina ak alaaxira képp ku fa teew sa aaja dana faju àddina ak alaaxira dafa am nag si Ahmad Tasrif benn waay boo xam ne dafa baax lool laa biir lool lewet lool am ay jikko yu rafet amoon tool bu yaatoo yaatu tool ba mu fay yar ay mala fas xar bëy nag nekk na ci tool bi juróom-ñaari at am fa aw nag woo xam ne saa su xëyee dana ko jox mu lekk mu raay ko ba nag wi mujj miin waa ji lool lool lool mujj nag waa ji xaw a màggat am feebaru xol ñu yóbbu ko hôpital mu def ci hôpital ba fukki fan ak juróom bi mu defee ci hôpital ba fukki fan ak juróom nag wi dafa feebar bay sukuraat ñu dem bay rendi nag wi doom yi mu bàyyi ci kër gi ñu ne ah kon suñu papa moom moom tool bi bàyyi fi jur gi bala ñoo rendi nag wi nañ dem wax ak moom bañ waxee papaam ca hôpital fa mu tëdd mu ñaan docteur bi na ko damaa bëggoon nga bàyyi ma ma demaan ca tool ba xool sama nag woowu ba xam ba àggee ca tool ba àgg ci nag wi téye ko raay ko nag wi jóg commencé di dund kooku mooy si Ahmad Tasrif noonu la bëggee njabootam yërmande boobu la am ci njabootam kon lii lépp rek ñu fi gis yëfi àjjana kese la yëfi nit ku baax kese la mbégte kese la si Ahmad Tasrif léppam dafa nekkoon yërmande ku gis coono bi sëñ Ahmed di def mbaaxam bi muy def woyefam gi mu def yooyu yëpp te ba muy ne tuut tànk nekk njaareem bis ñëw na ci noor nit ñi mu ne leen bu ñu àggee ci bat dat sàngam dana taw gone yëpp dañu àggee ci dat ba ñu bind ko ñëw nag ne ko sëñ bi Ahmed nee na woon bis sàngam dana taw bëgg koo tiiñal ba ñu ñëwee ba agsi ba ci moom ba ñu songoo bis ba bañ daataan ju fa ñu toog taw ba sotteeku na ci am noor lañ nekkoon ca njaareem te loolu tout tànk la kon cër boobu sëñ njéeri am Seex Ahmad Tasrif am ko woye fam ak mbaaxam loolu bu koy def dafay wax day dellu ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxool ne xool naa àjjana waaye nit ñi nga xam ne dafa am nu ñu bindoo ci jukko yu rafet ñoo ñooy waa àjjana tey boo xoolee jataay bi man sama xel yépp ci nit ñooñu yonent bi di jàngaay ci xadis yooyu rek laa fiy gis nit ñoo xamee dañu sell ci xol dañu sell ci jëflante dañu bëgg doomu aadama waaye nit ku nekk dañu lay bëgg a teral la sax seen yërmande kon ñu bàyyi xel ne sëñ Ahmad Tasrif mooy waa ji nekkoon ci tool bi nag wi sax yërmande bi mu amoon ci ma bi mu ko gëjee gis dafa dem bay faatu bi mu dellusee teg koloxo loxo am raay ko mu jug dox kon mbëggeel gi ñu bëgg matal gi ñu matal sëñ Ahmadu Tasrif noonu rek lay demee amoon na benn waay joo xam ne dafa amoon ñetti doom yu jigéen ñetti doom yu jigéen ñooñu kilifa gu mag la mu bëgg a xool ñetti doomam yi ban cofeel lañu am ci moom mu laaj ki mag ci doomam yi naka noo ma bëggee mu ne ko yow dama laa bëggee nii jën bëgge ndox yaramam daw mu may ko tere ko teraanga ju baree bari woowaat beneen doom bi mu ñëw mu ne ko yow noo ma bëggee mu ne ko yow de ni ma la bëggee mooy picc ni mu bëggee asamaan mu xool ne picc li koy dundal mooy di naaw ci asamaan ndax mooy léppam mu mayaat ko teraanga yu mag mu dem ba ci ñetteelu doomam bi mu laaj ko yow noo ma bëggee mu ne ko yow ni ma la bëggee mooy aw ñam ni mu bëggee xorom ñam ni mu bëggee xorom papa ji yaramam xaw a jiixi jaaxa mel ne ne kii bëgg ko mu mer ci génne doom ji yàlla di koy nattu nag muy dem ba ci àll bi mu réer jaxasoo àddinaam yàqu mu dema dema dem ba ci digg àll bi fekk fa benn sàmm bu nekk ci digg àll bi fekk doom ja mu génne woon ma nga foofee ca sàmm ba di ko liggéeyal nekk mbindaanam moom papa ji mu réer dem foofu xiif lool sonn lool ñu tegal ko ñam wi biñ ko cagalee ñam yi mu lekk ba suur daan ah sa ñam wi de xorom see ko neexal fàttaliku la mu génne woon doomam jooju xelam dellu si kon nañu xam ne sëñ Ahmadou Tasrif léppam cofeel la yaakaar naa ne loolu liñ ci mën a dégg bari na waaye luñ fi mën a wax rek ak luñ fi mën a def rek dafay dellu ci seen diggante ak sëñ Ahmadou Tasrif mbëggeel gi am seen diggante ak sëñ Ahmadou Tasrif ak matal gi am seen diggante sëñ Ahmadou Tasrif sëñ Ahmadou Tasrif nag day paaka ñaari boor benn bi day sëriñ njéer yi waaye beneen bi day si Ahmad Bamba mu Rasuul te kenn ku ne mu liggéeyal liggéey bu rafet liggéey bi mu liggéey see sëñ njéer ci ak dundam la ndax ba sëñ njéer di jóge waa daan di dem njaareem yónnee ba mu yónnee woon ca donga ya doon laxasu sëñ Ahmad Tasrif la ko jox yónneel ba mu dem wax ko ndonga ya bi sëñ njéer yi wàccee ab liggéey mu mottali loo sëñ Bamba Sougou ni ko sëñ Xaadim Sougou muy waxee yëmu ci waaye mu demaat sëriñ Touba ba am fa bisub ñaar fukki fani gi yàlla faj ci aajoom àddina ak alaaxira kon bis bu mel noonu bu jubu see ngeen fas bis bi di kay def ci ndigalu sëriñ bi muy sëñ Ahmad Tasif ci ndigalu sëriñ Bamba mi kilifa gi te que sëñ Ahmad Tasif benn kilifa rek la am mooy sëñ bàmba ñëpp cër boobu lañ ko jox kon na ngeen xam ne tax laxasu leen te xam ne lii mooy avant première màggalu ñaar fukki fan ci koor gi te képp ku bëgg sa aajo faju àddina ak alaaxira na ñëw ci bis boobu soo ci taxawee lépp loo bëgg suñ borom dana la ko defal ndax amuñ lu lislaam te lislaam kenn ku nekk xam ne koor nan la ci tool amuñ lu sëriñ Tuubaa xam nañ lañ ci tool amuñ lu si Ahmad Tasi xam nañ lañ ci toll kon sëñ bi mi ngi leen di sant yéen ñëpp njaboot gi mi ngi leen di sant sëñ bi nag dafa am na mu baaxoo mooy ak cantam da koy jox ka ca mag muy sëñ Pape Niang ka ca topp muy sëriñ moor ndax njaboot gi day benn te loolu rek lay wootee bu ko defee mbooleem njaboot gi góor jigéen mag ndaw gore yëpp mi ngi leen sant bu baax a baax waaye kilifa diine yi nga xam ne kenn ku nekk wàccuwaay yi sëñ Ahmed jox rek mooy wàccuwaay bi leen sëñ mbaam ma jox ñoom ñëpp teraanga jim leen jox mooy loolu ndax ñaara fi nekk ñi ñu bokkal lislaam bi bokkuñu tariixa bi ñoo ñooñu ñooy ñun ñooy ñoom ndax loolu lañ sëñ Tubaa jàngal loolu lañu sëñ tubaa jàngal dafa wax ne fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi walan yahida bépp képp koo xam ne nitu yàlla la nitu tariqa la bu ngeen ko gisee na ngeen ko xoolee ne sëriñ tubaa moo leen di àggal ci yoonu yàlla ñun ñi nga xam si ñoo bokk sëriñ tubaa nag wax dëgg yàlla si sëñ ahmad tasrif da ko daan wax nee na ñun njabootu sëriñ jéer yi képp kuy taaliyeeb sëriñ tubaa wala ngay seexob sëriñ tubaa suñ la mënee fay weer nañ la fay weer ndax ba sëriñ jéeri taxaw naan sëñ tubaa dana ñëw booba booba booba jafe na lool te kenn ñëwagul woon kon ñëpp bu ñu ñëwee adhéré wu ci li njéer yi waxoon kooku ñun dañ ko war a yaatal dañ ko war a bëgg dañ ko war a sob kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wax dëgg yàlla te euh, taaral ngeen jataay bi taaral ngeen jataay bi taaral ngeen jataay bi te lii ngeen fi taaral kat lépp ci kenn rek lay dellu mooy Cheikh Ahmad Tasrif ca jàmbaaram ca mbaaxam te ngeen jël ci ay leçon yoo xam ne da ngeen ci jariñu bu baax a baax te gëm naa ne mi ngi ci ndax njabootu baay siini gii wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ay ay gor lañ ay liggéeykat lañ waaye ñu bëgg ndigal lañ waaye ñu fonk kilifa lañ loolu lu kër ndaw lu waaye ndaw ndaw ci bii kër si Ahmad Tasrif loolu xam nga ko ci njabootu Alaaji Siini Ñaŋ gépp ndax kenn génn ci si Ahmad Tasrif kenn génn ci si Ahmad Tasrif te kenn ku nekk fa nga nekk yaa ngi fay liggéey lu mat sëkk di fa taxaw waaye bu mat sëkk ya yal na leen yàlla yëkkati ba ngeen bëgg yëpp ngeen àgg fa ngeen bàyyi xel lool nag ah tolluwaay yi nga xam ne réew mi fa la toll ngeen xam ne ci réew mi ngeen bokk ci réew mi ngeen bokk te lépp luy seen devoir ci réew mi def leen ko ba mu mat sëkk am réew nag boo ca bokkee balaa ngay réclamer ay droit da ngay def say devoir say devoir nag ba ci njëkk mooy bëgg sa réew jàpp sa réew jàppale sa waa réew la ca des nag yàlla dana ko mottali ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ñaan ci réew mi jàmm di ñaan sëñ Ahmed mu ñaan réew mi jàmm ak salaam ndax Sénégal ñun donga yii nga xam ne demuñu fenn réew mi suñu réew la kon ñun ñoo ko war a defar niñ ko war a defar nag mooy ñun ñëpp ñu àndandoo bëgg jàmm bëgg salaam xam ne solution bi ñu bëgg dëgg mu ngi ci loxol suñu borom suñ ko ñaanee suñu boroom rek danañu ko def yal nañ ko yàlla defal waaye dëkk boo xam ne am na Serigne tuubaa am na El Hadj am na Cheikh naa Cheikh Saad Bou ah dëkk boobu jàmm doo nga fa xaj te jàmm doo nga fay am loolu daal. xam naa ne wax dana jafe waaye ñu ñu jéem nag ci sëriñ bi sëñ bii nag ñu koy sant bu baax moom sëñ Ahmed di ko ñaanal bu baax a baax li ñuy wax rek euh, mooy sëñ Ahmad Tasrif ndax si Ahmad Tasrif moom léppam karaama la léppam mbaax la ndax mooy nit koo xam ne turam Ahmadu Tasrif képp ku ko man sa yaram araamal na sawara képp ku ko man sa yaram araamal na sawar mooy nit koo xam ne lu mas a tudd ci làmmiñam yàlla dana ko def soit yàlla def na ko ba pare wala yàlla dana ko def te loolu sëñ bi yóbbuwu ko ci njabootam gii la ko bàyyi fii la ko bàyyi kon ñu leen di sant bu baax di xam ne fi ngeen teg seen baaraam foofu la fi ngeen teg seen loxo foofu la mbir mi si Ahmad Tasrif la yal na yàlla jàppale yal na yàlla yëkkati baag si Ahmad Tasiir asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ jàmm doomi sëñ jàmm mooy ñaan di buróora am dan suróora kullira la ilaha illallah di buróora indi xaroora جرورا سرورا لكل رايا أبلي مرورا لا لا لا قرارا زرورا لكل رايا لا إله إلا الله مرورا من خرورا زرورا حبل المرورة كل را لا إله إلا الله حبل المرورة Sëriñ Tuubaa yi sunu yaakaar ak dem juróom noo la doyloo di ko nderaay أكبر أبلي مرورا لا لا لا أبدا زرورا كل لا لا لا لا أبلي مرورا borom Tuuba yi sunu yaakaar abdan zurora ay li kulli raaya أبل برورا أبدا سرورا لكل را لا إله إلا الله برورا borom Tuuba زرورا لا إله إلا الله borom Tuubaa sunu yaakaar sagub Seex Jéeri waa daan li kulli raaya awal murxilaame la ilaha illa Allah dila mariya بما لا يبرا لا إله إلا الله أطرق الأمر ومدنا ببعيدا إلى منام ونطرا أعساد نزالنا إلا لا إلا لا سبي معنا وما بلا sëñ Fallu boy faatu tabbi aljanatu lay bay alaaji baara wasil bara asad nisaana laylala laylala suymaana wasil bara illisaana layrjana layrjana layrjana

يختم إيران الله يفلو بان سعزة دائرة ليلة لا ليلة لا أبال لا جورا أبا لا ليلة لا دائرة يختم إيران الله يفلو بان سعزة دائرة ku sopp sëñ Fallu baay meen saajata daayira leexu ta daayira asaal daa ji joora daayira leexu ta ku sopp Seex Jéeri waada saadata daayira li xutama xafaar naa fi joora li xutama daayira شيخ جيري ودان الخزي علي بندنا علي أعوى بندنا علي يا tay badariya nar ko mu jëm Tuuba شهدير وعلى الدرايا واذكر خلاما وذكرانا بلا ملامة إلا لا ألا إلا إلا لا الخلاما إلا ملامة kini idamba khudul kidamba wakhbal wakhbal mataba awasira idamba الكتاب الكتاب خذ الكتاب واقبل ما تاب يا تزرع يا خير ربي خير المربي المنام تيمت خلبا يا خير ربي سي احمد بابا جوان تجاري يا للمهتدنا يا خير ربنا خير المربي لنا تيمت قلبي إلى لا يا خير ربنا سيهمد بابا كيوان جاري jaami moo leen moom bada jidaay ya xayra rabbi xayril murabbi tayam taxal be ilala ilala ya xayra rabbi Ahmadu Bamba Mbakke ki woon fi jaare jaami moo leen moom bada jidaay ya xayra rabbi xayril murabbi يبتغى قلبي إلا لا لا إلا يا خير أحمد القديم جوان في جاري سبب سيخ جريبا بدت جناي يا خير ربي خير المربي يبتغى قلبي إلا لا إلا يا خير سيخ جري جوان في جاري

الورى لا إله إلا الخبير الخبير والكبير ولا يبور من النوائب ربي خلي وابي مع المبا لا لا إله إلا الله إبا ربي إبا ربي سمت يا إبا تلالي mai da da la la la la la ila la la ila la la ma di la la la ila la la la la la مدعو المخفى أمري سفا وقد سافا إلنا لا إلنا مدعو المخفى maa ngi ñaan ku màggal xasida gi yàlla nga fekk déwén ñaari loxo ca kañ ñu màggal seen jéeri jël na ko بيختنا إذا مختير الدين إن ترى بلا اختراب لا لا لا لا لا لا لا ولا أنا يا إلى زكورة على زكورة يا لا إله إلا الله يا زكورة إلى لا زكورة على لا زكورة في زنايا في زنايا إلا تقي ليس الزخي فابروغي إلا لا لا إله إلا الله إلا تقي تقي تقي باقر خياي جنون داي جنون داي لم يرلو غاي داي بقلب أو داي ذنب أو داي لم يرلو قلب داي بقلب داي ذنب أو داعي داعي غير العباد سبقوك بعد إن المبادئ إلا داعي غير العباد سبقوك بعد إن المبادئ الغداء لغير داء لغير داء هادر ما عند مماتي خدا ونجني بجائي من ردا وخد سمامي بإمو إلى الهدى وأصلي عن ما من أموري فسدى بجائه ويسرا لي مقصدا وكفني سرا سودنا صدا وسر إبليس الذي تمرض وأخرجا أيبي بتخلي وارفه مقام الرب بتعلي وجل جميع حاجتي وحملي فيك وكل مقصد فيك جعلي wasluk bina maslaka ahlal ubbi wasaa'iri aslih waslih qalbi wastur una wa fi qadin wuyubbi واغفر لنا يا غافر الذنوب وهب لنا حسن ختام سرمدا بجاي من سميت محمدا وسليا وسلما عليه waalihi wa min lumi ilayhi hasa saadul musaafiru quutul aadir hamdan liman yafala kulla ma araad bi xawli fa yakunu fil muraad subhaanahu rabban latifan bi xarib musafiran lam yara aw lawoo xarib man xada wa waqaana wa abaat man asruku walam yatubu fi ibad wa xasana bi ramadana huba wa laylatil xadri fa ni'ma rabba summa salatan wa salaaman daama ala lase yusabbitul axdaama muhammadin walaali wasaabi nu jóob maan xulu biim jalla laawul ujub saawa ini yawma suu isaari faxri ila mawlaaya rabbi ijaari yaa rabbana ani musaafirul xarib walaysa li xayrukahu una xarib faab liya rujoo min sa safari in kaana xayran lii bi xayri sabari bila kaabati inqilaami wa bila xufay unayni ya karimu wa bala wa kullu insanin taalaxa biya wa asli an umuruhu ya rabbiya bi jaayi xayral mursalina ya jamil wa jaayi isbihi wa man lahum yamil ya faadilan fadlawul xalaaqu yaa man bii faaraxani l imlaaxu wajaatuka l yawma wali rasaaxu kaana bi ma tan moo bil arsaaxu maawta anima bi nifaaxu anima wajaani nifaaxu raddatali maa saaniwul wifaaxu bi ma bi astanaratil afaaxu jaari daa wal fawsu wal ixtaaru bika kama bika talat itaaru bika tawayna ma law nastaaru sala alayka al akramul xalaaxu likun bikun sarmadan waj al masiri yasaab jawfal faraalil wara mislal maarini saraftu aji liman yaxdi jami abikun waa tawasal bil mamduu fi nnooni أهل البرايا وأخساها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني وروآني وأتأمني يا راءة ساكرا كاللوء والنون حبي وودي ورضواني ومحمدة لمن أباني بما قد فاق مسنوني yaa rabbi salli bi taslimin bila adadin ala basirin nasirin minka mabnooni nabiyika almustafa bisaali inama al wakun bikun liya fi baadin wa maknooni yaa rabbana seex mustafa alaaji falilu wa bi muhammadu lamini wal basiri naadilib yaa rabbana bi sayxi abdilaake wa sayxi ibrahima xillulaahi yaa rabbana bi sayxi abdu samadi ku sopp sëriñ saaliw mbàkke lam yakkuhu min ahad yaa rabbana bi sayxi abdil xaadiri wa bi soxibina la falil xaadiri يا رسول الله سدد لساني نوير جناني صافي أماني وزد براواي lisaani nawir janaani janaani safi amaana wasir bara ya rasulillahi sasata daira sasata daira lixuta mayra lixuta mayra faltaku fi jawra liman yura sasata daira daira lixuta mayra tamayra faltaku fi jawra liman yura ya rasulillahi anqis hiya min dalali وبالألال خليل سرائي يا لمن دلال جلال وبالعلا خلي الزرا يا رسول الله يا خير ربي يا خير ربي خير المربي المربي طيب قلبي بدا ابتدائي يا خير ربي يا خير ربي خير المربي خير المربي طيب قلبي بدا ابتدائي صب برم توبا صلي وسلم صلي وسلم على المتمم على المتمم قل يا سما بلا انتهاء إلا صلي وسلم صلي وسلم على المكلم على المتمم وكل yaa rasulilaay cantay waral lii cantay waral lii mbaleen lu dul jeex lu dul jeex man sant naa la maa ngi ma àndal cantay waral lii waral lii ndoleen lu dul jeex lu dul jeex man sant naa la maa ngi ma àndal ku sopp Serigne Djily Wada an sogo cantay e waral waral bala ludul jaay man sant naa maa ngi ma àndal waaw waaw ndolleen dul jeex ma sant naa la ma ñi ma ngi ma àndal cantay waral li waaw waaw dollenu lu dul jeex sëriñ si Bamba wajal ora bimil na nanu mo ajala ajala jali batan limil na nanu mo ajala borom Tuuba wajal orabi minanal muajjala muajjala jalibatan liminanal muajjala wajal orabi minanal muajjala muajjala jalibatan liminanal muajjala sax borom Tuuba wajal orabi minanal muajjala muajjala jalibatan liminanal muajjala wajal orabi minanal muajjala muajjala muajjala jalibatan minana al muajjala sopp borom Tuuba wajal ora bi minana al muajjala muajjala jalibatan minana al muajjala wajal ora bi minana al muajjala muajjala jalibatan minana al muajjala ajjala jalibatan minana al muajjala jalibatan أنا صبي رسول الله جالبة لملنا المؤجلة جالبة لملنا المؤجلة جالبة لملنا المؤجلة جالبة يا رسول الله نفسي وديني ثم أهلي والولد والولد ومسكني لك وديئة أبا نصي وديني ثم آلي والولا آلي والولا ومسكني لك وديئة تصب محمد رسول الله نفسي وديني ثم آلي والولا ومسكني لك وديعة أبات نسي وديني ثم أهلي والولد والولد ومسكني لك وديعة كسب سيخ من دون بسالة نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة أبات نصير وديني ثم أهلي والولد أهلي والولد ومسكني لك وديئة أبات شيخ إبراهيم مثل نفسي وديني ثم أهلي والولد أهلي والولد ومسكني لك وديئة أباوات نسي وديني ثم أهلي والولد أهلي والولد ومسكني لك وديئة أباوات سرين بسير سروحك سايا دنيا يما أخرايا أخرايا ففي إماء أسري في الرسايا وأكسا دنيا يما أخرايا أخرايا ففي إماء أسري في الرسايا رسول الله وعكسا يا دنيا يا ما أخرايا ففي إما أن أسر في الرسايا يا يا وعكسا دنيا يا ما أخرايا ما أخرايا ففي إما أن أسر في الرسايا يا رسول الله واصرف أصاب نار الجملة من جملة من من بيتا له من أبناء زمن واصرف أصاب نار الجملة من الجملة من يتألخ من الزمن سمن به وصرف أصاب نار الجملة من من بيتألخ من أبناء سمن وصرف أصاب نار الجملة الجملة من بيتألخ من أبناء سمن يا رسول الله وصرف أصاب نار الجملة من وصرف أصاب نار الجملة الجملة مال جملة مال واصرف أصاب نار الجملة مال الجملة مال مال بيتالخ من أبناء سمر واصرف أصاب نار الجملة مال الجملة مال بيتالخ من أبناء سمر نائس من واصرف أصاب نار الجملة مال جملة مال مال بيتالخ من أبناء سمر واصرف أصاب نار الجملة الجملة من يتألق من أبناء زمان لا زمان واصرف أصاب نار الجملة من جملة من عن بيتألق من أبناء زمان أصاب نار الجملة من الجملة من من بيتألق من أبناء زمان مريم فوت الموقنات إن لسي لم يدرك مريم فوت الموقنا إن الذي لم يدرك جرم اسم علي والولد فمن كريم لك ودي أطلبت نفسي ودي ثم علي والولد مسكني لك ودي أطلبت أطلبت نفسي وديني ثم أغني والولد مسكن لك وديعة لابت ترابا في ودين ثم أغني والولد بولولا مسكن لك وديعة فجرة الأباء وديني ثم أغني والولد لي والولد ومسكن لك ودين لك ودين وصبر رسول الله وديني ثم أغني والولد لي والولد ومسكن لك ودين لك ودية الأباء وديني ثم ما أغني والولد لي والولد ومسكن لك وديعة أبو الأباء دنيا أما أخرى يا أخرى يا فيك ما أنس في فيرسا فيرسا يا دنيا أما أخرى يا أخرى يا فيك ما أنس المسايا تابلنا عن جملة ما جملة ما يتكلم من أبناء كسب برمتما فسابلنا عن جملة ما جملة ما يتكلم من أبناء أبناء السماء فسابلنا عن جملة ما جملة ما يتكلم من لنا نعم سماوات الإخوان من أغارب أغارب دين أم في دين وان أجانب سماوات الإخوان من أغارب أغارب دين أم في دين وان وان أجانب حسنا ودعبا يا سامت بن يا سامت تولني ولا تكل تكل وسب على ليكن حسنا ودعبا يا سامت بن يا سامت تولني ولا تكل ولا تكل للأوى ليكن إذنا ودعبا يا سامت بن يا سامت تولني ولا تكل ليكن إذنا وعدا بل يا سامت بل يا سما ولاني ولا تكلني للأغا جميع المسلمين بنا بنا سليا وسلما لمن سرمدا جميع المسلمين بدا نبدا سبيا وتسليما سليما سرمدا محمد وسيلة لك لك لهم هن الخيرات إذا بلك محمد التي لت لك لت لك نال خيبة إذا منك أموما التي لت لك سخبا باي واجا نال خيبة إذا منك أموما لت لك لت لك نال خيبة آمين لك تيلة لك تيلة لك من خطاب خطاب لك تقرب صلاة لي تغامى صعبة عليك وغملي أملي الإجابة تقرب صلاة لي تغامى صعبة عليك وغملي

العرب على خريط العرب عرب يبوق ضيهم صمم عرب لنسم العرب خالد الربا خالد الربا وفاوز الغرور غرار والنبا يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا خيوم يا مجرم يا خيوم يا خيوم يا مجرم يا xëyooma yaa mugrimi yaa maa ñaar ku jóg taxaw te kaw màggal borom Tuubaa yàlla nga ayuwa yaa ayuwa yaa ayuwa yaa ويا يوم يا مجرم يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة أيوة يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا قول خادم أيوة يا يوم يا مجرم يا أيوة يا يوم يا مجرم يا أجاك دق القديم مسلسلا لا إله سلم هل مزاده غلاما نجاك دق القديم مسلسلا على مساسي غلاما نجاك دق القديم مسلسلا سلم هل مزاده غلاما نجاك دق القديم مسلسلا مسلما على مساسي الخلا الخلا مسلما على مساسي الخلا الخلا مسلما على مساسي الخلا مسلما على مساسي الخلا مسلما على مساسي الخلا مسلما على مساسي الخلا فخر كفى ولا يلاقي كل بر سيل بر في الكرم في الكرم أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد ربي على أحمد ربي على أحمد ربي على Amadu Rabbi Yaqala Amadu Rabbi Yaqala كتابه للزغلا كل كتاب نسلا بك الكلي وبالفم أذكر ربي العظيم على كتابي لكيم وفزت فيه بغلام تنفي موسى تلافمي كتابو سرين بامبا فونكو القرآن كتابو كتابو يلا مومنونكو القرآن كتابو sëriñub Cheikh Ahmadou Tafsir Sugooy boroom alxuraan kitaabu kitaabu rabbi al kitaab inaksistaa dikal kitaab yusum nu gëna wajaari baat huwa xaliilun wa abib nee na alxuraan yaay sama soppeey xaliilun wa abib huwa xaliilun abib lii lii lii lii lii lii lii lii lii lii lii lii يحب اللمام ينهب خير الأخم يا خيرا يا خيرا يا خيرا يا خير ذكر النزلا يا خيرا ñaari loxo ca kaw ñu màggal borom Touba loxo ca kaw ñu màggal borom Touba

ليتخادوا نسلا من سلبخاء والخدم يا خير ذكر الغنم هنزبايا منا لي خالد النار خدا saa amanin wa xidami anta rabi xilil jinaan yaa man yasoonu lil makaan ulitu taayibul janaan yaa xayra sigrin mookami yaa xayra yaa xayra yaa xayra sigrin rotira bi ba mi saakirin talaa سغلي سواي من خلا فليكن واكمي يا خير منسل يري ما غاب ستدبر ربي يصفي بكره بك بخير التكم يا خير يا خير يا غيره Sékéré xama xama xalmi fama aneega ama bla pelma telen ma baay mi ku sopp Sëriñ Tuuba bi ka saltu Maaliki بك سألت مالكي كوني نور سالكي وسنجي سابنا زكا الجلا والمبامي يا خو دالي النبي في أبد الخبي السلام المخرب الانتيان والمختم سبحان ربك رب العزة ما يذبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ محمد الفضل ma doon falilu Serigne Fallou Cheikh Mamadou Fadilou ay fadi fale taji ku ko neex mu falla ngay fale ki mooy saayibul kumala alul fada ilu malam yawi adul moom raw na mboolem ñi fi aram ci wàllu gune soodaanu bidaanu purinaari la dana la sëriñ Fallu maamam sërif la sërifun bun sari bun tari bun bun tari bun tari bun bun tari bun tari bun bun tari bun tari bun bun tari bun tuuma jubloola doxoti saatir sëriñ Fallu du tas yaakaar fu daw ko ma laaj ko laaj moo may la nga xiijal sëriñ Fallu loo xaane yola ana Muhammadul Muxtaaru maana ko way yaw say xonaal tudul yaa moom fi may ma ci laa لولاك تقبلوا فلله فلله لولاك تقبلوا xewal ya wal wal walaata na ngeen roy say xulaay kay bu soobee la kay mooy njiite mooy wasila lor na xewali ba waan te toot ji xabaaral ku sopp Sëriñ Fallu Mbàkke Seex Sëriñ Saar Saar ku borom gaawaar Saar iriñal moo leen deexa alay borom gaawaar maam Sëriñ Saar Saar ku pal borom gaawaar iriñal moo leen deexa bu sëpp Seex Basiiru Saar bu baal borom gaawaay xiri jàll moo leen sax Sëriñ Basiiru Saar bu baal borom gaawaay xiri jàll moo leen sax suru nampal xibra nampal aram bi nampal di jàllu bambaay faal خاب ليلى خاب ليلى قد فاق سلا من البغاء خاب ليلى خاب ليلى قد فاق سلا مش البقاء إن خراب ليلى ليلى إلا خراب ليلى من البقاء خراب ليلى من خجا بميري أكد خير وباب دير لسخائر إلى خير وباب دير كسب جل ما كسل خجاك خجا بميري أكد خير وباب دير لسخائر إن أنسى الكمال قرجال أنسى المجال بالاجتماع فخر جالا جاس المجال كسب جمع كسلوخ جكونا لجلال الجمال إمان تغالا بسماء نال جمال ممن تعالى تبع أقرم بغالي يا دي سنين دا بغالي فنان امال عظيم امال كريم من مقيم الى ادايا ku sopp sëriñ jëri borom waa daan sëriñ bamba gërëm taafil xoroor bamba laay laay la ayil xoroor bamba laay laay la la mbooloo mi ku bëgg a tàggoog bàkkaar ba seen wi ci dugal taxaw ca kaw ñu màggal borom Touba ku jug taxaw ca kaw màggal borom Touba yàlla nga tàggoog bàkkaar base afil goroori amalay lay alayil goroori amalay lay lala buroore تخي سروري جل فائرة مع الخيور استفى لأمتي دائي بعد نجائي عند السبايا في المدارة أنا نجايا neen salaatu ci ta bamba day tag ma dëkkiti ta ku muy tag de tati hibata atu sa weer yi day julli juróom weer yi day ku muy tag Seydina Muhammad salaatu ci ta bamba day tag ma dëkkiti ta tati hibata atu bii mat bii mat ku sopp Seydina Muhammad bi mat di ta ku muy tag de sa dëkki di daa ilaa bi mat di daa alay jalla te paaxakun taala barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi sant yàlla julli tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waay julli Alaaji Seeni Ñaŋ nga xam ne fii Thiès bu muy am juróom-benni at yóbbu ko ànd ak moom ba moom fukk ak ñaar bu dellu su ko Thiès sàkkal ko bis bii tey def nañ ko ànd ko moom ñaar fukki at bu demee bar sàq sunu xalifum baa bi di sunu baay di moo sëriñ Moor Ñang ànd ak sëñ Ahmadou Tasrif man Aliou Sarr Niang di seen organisateur ànd ak mboolem rakk yi ko defal bis bii di ñaan suñu borom yàlla nañu ko teewi déen di jaay rasulullah alayhi salaatu wasalaam ba ci Cheikh Khadim ñi ngi sant mbokk yëpp di sant dëkkandoo yëpp xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw ñu ngi amaan santaat mbégte ak kontaante bu baax sant gi ni am di tuub bu baax si kàddu yi nga xamante ni duñ koo jël waaye si ndigal lañ ko jële ndigal gi jugee si sunu waajur wii toog di alaaji mool ñang tey taxawaayu taxawaayu bàyyi siini ñang bu ma sëkk wax si biir rek moom laay waxaat ñun njabootu bàyyi siini ñang ni koy grand Amadou di waxee ñoom ñoo ñàkk waajur waaye ñoom ñoom suñu waajur ñuy ñaan ci yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa lii mu fi bàyyi mooy nana loo xam ne kilifa yi diine yi kër kilifa yi diine yi kenn ku ne na ngaa màkk ba màkk samp ko fi ba tey samp googu daanuwut bàyyi si ni jël lu mel nii ko si gii alaaji moor ñang ñu ngi lay ñaanal en tant que Serigne Cheikh Niang bokk ci ñi nga njabootu El Hadj Sini maa ngi ñaan ci barke borom Touba du fekkee diggante ma nga rak a nga doon sunu sang yal na yàlla guddal sa fan yokku say xéewal ndax tiidoolu kaay waaye noonu la ñuy santal bu baax ni ko Fallou di waxee ki nga xamante mooy Aliou Niang di ñu dimbali ci liggéeyu Baye Sini Niang man de lottu naa di jël kàddu ci jataay wii xàmmee nan ma ci télé bii waa RTT TV maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lii lépp liggéeyu Baye Sidy Niang moo jot suñu fësal ko wone ko waaye Baye Sidy Niang géej la ku ci duggo xam ni ngay toolee waaye ñun ñëppalu Baye Sidy Niang xam na li mu teew wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf RTT ngi leen di sant di leen ci turu xalifa bi moor ñëw jërëjëf yaa ngi ko fi teewe na gën a dëgg bu ànd ak wér wér li yàlla dooli kattan dooli sutura si man bi jërëjëf jëf barke Cheikh Moukhtar